neen ñi ngi fii tey ci Playa hôtel La Playa tey ñëwoon fii euh, di euh, assister agence Afrocom agence Afrocom bu ñu ko déggee wus entrepreneuriat ñu war a euh, décorer primer suñuy ay ndaw ñu nekk Sénégal fii di liggéey ñu bëri nag ñi ngi ci lu ci mel ne ay styliste ay couturier entrepreneur ñëpp a ngi fii tey nag ñu ñëw teewee affaire bi wax leen primé décoré leen te ñëpp ay ndawu Sénégal lañ ay xale yu ndaw waa ju wane seen bopp léegi nañ li ñu leen di bàyyi ba ci kanam ñu xuus dugg jàll xool luy am ci biir marché ñu ngi euh, Palace euh, jàkkaarloog Sophie Store borom lingerie yu baax yi ku ko xamul dégg na ko ñu bàyyi la nga nuyoo Sophie Euh, maa ngi Euh, ñëpp Donc c'est Sophie Ba, la fondatrice de Sophie Store, numéro 1 de la lingerie à Dakar. Voilà. Mm. Euh, ñu gis la li yombul mm-hmm. tay ñi ndaw Sénégal yi nekk fi mm-hmm. ñu tàmm la yow mm-hmm. ci ñu ñu war a honoré décoré la kon li ngay jaay preuve la wane na ko tey Sénégal euh, ay ndaw ñu ngi fiy liggéey teewul li ngay def macha allah. ñu jël la tey di la honoré lan nga lan nga yëg tey damay sant yàlla parce que business bi ma ko commencé ça fait juste deux ans deux ans et bi mooy sama troisième trophée donc euh, damay sant yàlla premier trophée bi Las Vegas dañ ma ko joxe woon deuxième trophée bi c'était euh, au CICES e donc euh, bi mooy troisième bi je suis très honorée ça fait plaisir c'est motivant day tax ñu gën a yokk jom gën a liggéey voilà mu ngi noonu initiative bi fan la jógee initiative euh, nga am initiative liggéey loolu nekk def lingerie yooyu noonu. waaw bon man jàng en fait man dama jàng am sama master 2 en marketing intelligence d'affaires am naa beneen liggéey bu dul lingerie bi am yeneen business bu dul lingerie bi mm-hmm. mais lingerie bi moo gën a fës en fait moo gën a fës uh-huh. donc business bu lingerie dafa nekk loo xam ne dafa ma neex uh-huh. voilà jigéen la waaw ñu ngi sant yàlla euh, general manager bu Idiap euh, Store Dakar donc euh, di yëngu ci li nga xam ne moom moo di di defar ay hijab yoo xam ne jëgaani wuñu ko Turquie wala Chine wala Dubaï fi lañ ko defaree ay doomu réew mi man nag de profession man maa ngi liggéey si média yi Euh, hijab je me suis improvisée euh, hijab designer parce que dafa nekk loo xam ne ne daf ma daf ma euh, daf ma neex parce que dama koy def déjà mais lépp lu may def ma dama si bëgg une touche d'originalité waaye surtout tamit muy allier li nga xam ne moom moo di traditionnel ak moderne donc sama hijab yi dañ koy def depuis bientôt quelques années ñu inspiré wu ci culture sénégalaise culture africaine donc euh, ak tamit di ko defee nu mu gën a yombee ba taxet tamit euh, ijab yi dinañ ko mën a def euh, ni ko diine ji santaane mais du duñu yàqal dara su suñu liggéey dinañ dem ak moom fépp fu ne ci milieu bu nekk te duñ ci am benn gàcce au contraire dañ koy sol avec beaucoup de fierté loolu moo nekkoon mission wu ijab store et alhamdulilah je pense que ñu ngi ci yoon bi waaw maa ngi lay fay di am mbégte bu baax a baax nest Euh, ñëw tey fekk leen ci euh, trophée wurus bi ah donc euh, mu doon lu rëy ah lu rëy ci ñun waay. mu doon lu rëy ci yéen. nga nekk tailleur ñëpp xam la macha allah tey ñu jël la mu waa wurus boole la ci affaire yi muy lu rëy initiative bi fan la jóge sa initiative fan la jóge waaw xam nga nag bu fekkee da nga nekk ndaw ah, n'est-ce pas def ay jéego yu bare bari. Euh, nekkoon mannequin nga xamante ne ku nekk xam na ni que le mannequinat n'est pas fait pour l'éternité c'est pour un laps de temps euh, ci noonu nga dugg ci wàllum ñaw bi euh, yàlla borom bi subhanahu wa teg ci loxoom nga def ay jéego yu bare bari ba mun a yegg si fii ba nga xamante ne tey bu ñuy woo ay nit ñu xam ñu ngi nekk ci millier bi ñu war a représenter le Sénégal a travers le monde ñu boole ci sa entreprise loolu sant yàlla la. sant yàlla la donc euh, ci loolu nag euh, ma gis ay ndaw tey jóg nañu kat euh, ci liggéey bi nga xam ne def nga ko ci réew mi war nañ la cee jox trophée du ma def lu dul am ci mbégte bu yaatoo yaatu. waa Xaar Média pour jël si suñu prix. Mhm. loolu moom mu fi indi tey. sañse bi rafet merci beaucoup. ñu gis ay jeunes ñi nekk ay jeunes te ñu war leen honoré tey décoré leen lan nga leen di wax ñu nekk ay jënu senegal ñëw liggéey fii seen réew. di ñu war leen honoré tey lan nga leen di waa di wax di leen félicité tout d'abord ba pare dina wax ñu yokk góorgóorlu rek te xam ne yàgg bawul dara jàpp rek taw ba incha allah dafay baax. Mhm. merci beaucoup maa ngi lay fay tey ñu war leen primé wala décoré fii lan la lay def. Ah, am si mbégte mbégte bu bëree bëri gannaaw bi ñu nuyoo ñëpp nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan sant yàlla bu bëri nuyu suñu waajur remercier euh, les maam du réseau des de leaders. Euh, décoration bi macha allah mbégte lañ ci am bu baax a baax. Euh, gis nga nekk jeune di def euh, entrepreneuriat ya yi kañ la kañ la commencé kañ la ko commencé. le réseau des femmes leaders de a mis ça en place depuis 2018 2019 waaw di yëngu ci li ñuy organisation foire. donc ku wax jigéen wax entrepreneuriat wax autonomisation de la femme ñun loolu moo ñu jógal tout ce qui participe à développer le leadership féminin donc réseau bi ñu ko mettre en place sa accompagne euh, les femmes à aller vers l'entrepreneuriat di organiser ay événements organiser ay foires ay manifestation macha allah ba tey ñu ci am euh, euh, euh, ki nomination bi satisfaction bi ñu si am. début bi metti woon na wala début bi noo ko dund waaw xawoon na metti parce que organisation euh, yombul yomb na yombul mais macha allah ñu sant yàlla chaque fois que ñu jóg pour organiser di am ñu ci jàpp membre yi aussi di ci jàpp bu baax a baax a baax a baax euh, ñu nekk ci septième ba huitième édition donc macha allah à chaque fois que ñu organiser rek dañ ci am dam am ci satisfaction. merci beaucoup. waaw en fait euh, def na ma lu bari franchement parler ndax parce que du. suñu suñu doole suñu njàmbarte dara peut-être tamit dañu ko boole mais tamit suñu xarañ moo ñu ko moo ñu ko moo ñu moo ko waral quoi le fait que ñu liggéey ba am fu ñu yegg ñi ñu xool ñu ba xam ne ñii ay jeunes entrepreneur lañ ñu doon ay xale yu ndaw macha allah ak sama frère Tibou borom afro afrocom voilà macha allah quoi. las las nuyu naa la. maa ngi fay sama xarit bi. moom nag li ma jaaxal yéen man xamee wu ma ko TikTok laa xamee xaw ma ko ci tey ma gis ko fi la ma fi sa teewaay. waaw tey nag sama teewaay fii ak waa afrocom déjà seen ambassadeur la et man tamit influenceur la boo xamante ni damay liggéey ak gars yëpp ah ñëpp laay liggéeyal waaw waaw waaw boo gisee bàcc bi xam ne je travaille avec Afrocom waaw dëgg du neex. ñu gis waaw waaw waaw organisation bi moo ko laaj. moo ko laaj waaw lu laaj rek moom lañ koy jox mais maa ngi kontaan tamit euh, ci seen taxawaay parce que ku xam sans limite xam ni sans limite dafa ñoom ñoom dañoo doy waar. waaw da ngeen a meilleur nag da ngeen a meilleur ci site internet yi di nuyu sama xarit bi Yérim moom dafa baax mais kenn du yow. projet Las. waaw Las moom mu ngi ci lépp mu ngeen ko gis ci lépp mu ngeen ko gis ci série télévisée mu ngeen ko gis ci film mu ngeen ko gis ci lépp xaaral ma ci lépp waaw. waaw ah, kon bonne merci beaucoup maa ngi leen di gërëm. maa ngi lay fay soxna si. borom A. borom AMD collection. waaw ngay def yu rafet des grands hommes. loolu leer na ñu gis ni tey ñu boole la ci ñu ñu honoré bon di ko rafetlu rek di kontaan di féliciter toute l'équipe de Afrocom di leen encourager waaw c'est un début te on dit que tout début est ñu ngi leen di encourager bu baax ñu jàpp too bàyyi incha allah. maa ngi taxaw moom nag ci organisateur yi la bokk Papy nuyu naa la. waaw fay la bu baax a baax a baax. ñu gis ni tey nga organiser li te lii première édition mu rëy nii réussir lan nga ci mën ba juste dañoo kontaan kontaan bu baax a baax jàppale suñu suñu doomu ndey suñu frère Tibou moom mi mi ñu boole ci lépp depuis là on a commencé depuis longtemps mais booba léegi jàpp ñoo ngi jàpp bu baax a baax a baax gis nañ ci lu ne nag mais là alhamdulilah ñoo ngi li ñu gisagum daal dana suñu xel bu baax a baax a baax. nañ leen xaar ci yeneen. waaw waaw nañu xaar lu bari parce que là on est seulement la première édition après nañ génn bu baax biir ñëwoon nañ dem ay Thiès ay Saint-Louis ay ba ba Gambie sax on a programmé des choses pour Gambie nañu xaar daal incha allah nañ ñëw bu suñu xarit. suñu doomu ndey Liki Liki <laughs> Liki Liki borom lan nuyu naa la Liki Liki. waaw maa lay fay sama yaay ji. suñu waykat bu mag bi. waaw ça va bi maa leen waa tey suñu xarit suñu doomu ndey mu woo ah yónnee ñu ay junni yu bari ñu ñëw defaral ko lu neex barke Serigne Saliou Mbacké bëgguñu waa ah, xam suñu place xam fu ñu teg ñoo koy ñaanal jàmm. waaw te dañoo ñëw pour bégal gaay hmm. barke Serigne Sall na fii di yomb. bilaay. incha fay naa la. waaw doomu ndey Liki Liki. waaw maa loolu. lu fi waral sa teewaay xam nga rek ñëw jaar rek def suñu participation ci xew bi parce que mi ngi noonu ñun daal ñu ngi ne ay jeunes talent lañ nekk ci aar bi. faaw ñu jaar doxantu dëgg du nekk. foo leen jaar yoon la jàll leen. la waaw <laughs> nekk jeune xale bu ndaw macha allah xarañ ci lu muy def nuyu naa la. Suzy Fashion fay naa la ma ça va ça va bien alhamdulilah ñu gis tey ñu taamu la ci ñuy décorer tey xam nga ne ku ne xam ne ni li yombul ñuy décorer tey boole la ci woola lool lan la la dem. waaw dama kontaan rek te xam na tamit euh, dama ko liggéey daal waaw dañ ma woo tamit ci luy gën a kawe lii incha allah parce que liggéey naa ko. Euh, ça fait un an mais ku ma ko wax doo ko gëm parce que vraiment macha allah waaw maa ngi ci gis sama bopp bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. un an nga am ci lii yëpp. waaw allah daal parce que fawuñu daal dañuy liggéey fawuñu dañuy. liggéey mooy projet c'est-à-dire comme xaaj waa ni dañ ma xaaj yu baree baree baree bare dañuy door a commencé nekk xale dañuy def nànk rek waaw dañuy dañuy def nank nank nànk nànk cat dafa gaaw daal dañuy def nànk comme xale la ñu daal dañuy def nànk rek ba ci kanam mais ñu ngi ñu ngi am ay projet yu baree baree baree bare duñu wax lépp nag mais après dinañ def nit ñi di incha allah merci beaucoup merci nañ leen bu baax a baax. ba ñu gis tey ñu lay honoré di la décorer lan la la euh, mbégte ak soññ boo xam ne euh, dañ koy soññ toute une jeunesse parce qu'aujourd'hui boo nekkee jeune nga nekk sa réew di liggéey euh, yàlla dogal say moromu jeune honoraire tu ne peux que sant yàlla e wax yeneen jeunes yi ñu gën a góorlu pour que bu ne ñoom ñu mën a taxaw fii ñu taxaw. maa ngi leen di fay bu baax a baax waa sans limite. sama mbokk yi sama xarit gis nga. diir ñu gis tey euh, ñuy honoré ay jeunes ngeen nekk ay jeunes Sénégal di liggéey suñu réew bàyyi lépp jàpp di liggéey suñu réew tey ñu war leen honoré lan la la def. non c'est une fierté c'est c'est une fierté pour deux raisons pour man la première en est bu ma gisee liste nominée yi pratiquement 80 pour cent yëpp on a j'ai eu à travailler ensemble bu ñuy gën a nekk xale avant le succès. kon ça dire que ñun ñu ngi woon si chemin bu baax bi moo tax tey mu produire fruit bi. Euh, hormis ça pour man deuxième raison bi mooy day mettre en exergue tey jii suñu liggéey ndax pour man tey jii nominé wuñu Sir en tant qu'acteur mais dañu nominé Sir en tant qu'entrepreneur pour deux raison yooyu. je me dis que c'est à saluer et c'est à encourager. Ça nu motive, nous les jeunes, à plus entreprendre, à plus travailler pour le développement du Sénégal. Merci boo xamante ni franchement dañu koy remercier bu baax muy Thibaut Faye un jeune leader car un leader ne parle pas mais il fait parler car dans la vie on peut tromper une partie du peuple tout le temps ou une partie du temps tout le peuple même pas tromper tout le peuple tout le temps et c'est une équipe de jeunes je le répète dynamique capable de tout faire avec une seule option c'est de valoriser l'image de notre cher pays qui est le Sénégal ma bëgg ngeen tàcc bu baax baax a baax balaa ñoo bi bu baax a baax a baax a baax ki nga xamante ni moom moo ko organisé muy Thibaut Faye. Ifa maa ngi lay fay waaw man la Thibaut Faye euh, président directeur général de euh, Afrocom une agence de communication marketing et événementielle basée à Dakar euh, ñu nekk di créer suñu extension sur les 14 régions du Sénégal nous sommes actuellement présents au Bénin en France et au Maroc. voilà concept bi mu ngi tudd Wurus entrepreneuriat ñu nekk suñu première édition et macha gis nañu ça a réussi mm-hmm. les sénégalais on répondu à l'appel mu nekk concept boo xam ne vraiment dañ ko dañ ko indi pour encourager les entrepreneurs pour wan leen ne vraiment yéen fi nekk parce que dañuy gis ne y a des concepts yoo xamante ne dañuy indi ay ay ay ay ay ay corridor jël ay ay ay artistes di leen primer bien vrai que primé nañu ay artistes ci cérémonie bi mais quand même on a privilégié les entrepreneurs. Mm. parce que tout le temps ñoom ñooy nekk derrière ci scène bi. y a le styliste bi nga xamante ne tout le temps moom mooy ñëw tenue yi. y a keneen ak keneen yi nga xam ne tout le temps ñoom ñooy ñoom ñooy def le tout ba nga xamante ne voilà y a une réussite totale de de de ce qu'on voit de la de, de la vision. moo tax dañ leen di dañ leen dañuy choisir def suñu première édition euh, direction de l'emploi aussi jàppale ñu ci avec le directeur. Euh, Modou Fall ñu koy remercier bu baax euh, ñu mobiliser jeunesse bi yëpp Afrocom nag nekk benn agence boo xamante ne dafa regrouper des jeunes man mii ko créé dépendre ma ci kenn kenn taxul taxawul ne ma maa la financé lii je suis parti de mes propres moyens from zero to hero et aujourd'hui je peux me voir comme un héros parce que euh, ko boo boo dajalee Sénégal ñëpp wuy la rek xamal ne vraiment ci as fait quelque chose